salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi salaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu fii ci kër Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahu llahu wa raahu wa ayadahu wa nasara di ñëwati rek ci ni mu ko daan defee ci waxtu wu nekk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 sëriñ bi sëriñ bi. lu nu mat a ñaanal. lu nu mat a ñaanal. tey ëllëg. tey ak bi ñaanal nañu ko. sëñ bi ñaanal ko. te boroom nangul na ko. kon nag kon nag. li war li war nan sax ci wéetal yàlla. sax ci jaamu yàlla. sax ci sant yàlla. sax ci sant yàlla. sax dàkk ci loolu. sax dàkk ci loolu. li ci des nag li ci des nag.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 kon nag lépp loo xam ne yàlla suñu borom teg na ko suñu kaw ci nattu nañ ko delloo ci moom ngir xam ne moo waxoon ci alxuraan ne wala nabluwannakum ko shay'in min al xawfi walla juu'i wa naqsin min al amwaali wala anfus wa thamaraati wa bashiri sabirin kon mooy lii fii jamono toll tey ndax mooy firfir ju métti wala euh, jamono joo xam ne day mel ne nit ñi dañoo amul duñ lekk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 li nga xam mooy sunnatullahi fil ardi mooy wala xad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna alkaasibin naka jekk saa su adduna masaan dem ba agsi fii dana wàcce ab natt boo xam ne da koy jëmee ci nit ñi nag moo xam la tax mu def ko jublu ci dara nag lu may faral leen seeni rëcc-rëcc ak yokk leen ay tuyaaba kon nag bu nattu agsee na ko ñëpp delloo ci yàlla ngir xam ne fa arsalna alayhim tuufaana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 nga sante ko yàlla taxam ne nattu la bu la yàlla suñu borom tegoon teggi na ko kon xéewal la ko kon nag sëriñ bi nee na na seenum xeddal te ngeen gën a yaakaar ngir xam ne di sëriñ Touba ñaanoon wax ne won fii la ba wal balaaya kullaha anha wa tey shurbaha wa akliha lii nag suñ borom mooy doxale ni naka jekk ci kaw suuf bu ngeen déggee alxuraan di wax ne wattaqu fitnatan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 ci la daal di tàmbali joxe ndigal fépp fu ne ñu di fa jàng alxuraan ci jàkk yi ci daara yi ci barab yëpp ba ndigal loolu moom daanaka ba bisub tey nit ñaa ngi koy def beneen bi ci des muy wàllu dimbalante ci diggante taalib yi ak diggante jullit yi luñ ci doon def sëriñ bi bëgg nañu yokk ko ndax kat nit ñi toll nañ foo xam ne aajo woon nañ ko toll nañ foo xam ne it itte woon nañ ko